bokki taalibe yi mm, bokki murid yi sama bokki taalibe yi ñoo leen di nuyu di leen siyaare di am ak mbégte ci jot jotante ak yéen baatum ndigal boo xam ne dafa bàyyi ko Cheikh Mouhamadou Mountakha mu wax ne nañ ko jot mbooleem daara yi jàngalekat yi moo xam daara la moo xam jàkka la moo xam jumaa la ak foofu taalibe bi nekk rek ak jullit bu ci mën a mën a mën a bay sa waar muy jàng alquran tàmbalee ko di wàccee kaamil tàmbalee ko dibéer jii di ñëw ba dibéer jële di di ñëw boo defee suñu àggee ci altine ji nag soo ko soo ko tëj moom moo koy tëj mu wax na ne ni mu ngi koy ñu ngi koy digal bépp taalibe bokk yee xarit yi am di jàmm yi taalibe yi rek ñu jéglu nag ci kàddu gi euh, am na ci lu ma ko bëgg a noo xam sax sëñ xaadim yi nga xam ne moom moom la ñu booleel ak sëñ basirum sëñ abibu ak sëñ mboole mbokk yi ñi nga xam ñoo ñoo ngànk Tuubaa ci ci ay kilifa ala njaay cheikh ndindi sëñ cheikh ibrahim sëñ jiri ak mbooleem bokk taalibe yépp rek ñu leen ci woo di leen ci soññ te xam ne ndigal moom mooy mooy mooy jariñu taalibe kon nag na nañ ñëpp rek nañ daal di maas ci taxaw ci loolu ndax buñ ko ci loolu sunu sunu defaru nekk ndax sëriñ bi saa yoo yëkkatee kàddoom rek loolu njëriñ la ci noonu ñaan suñu borom mu tawfeex ak tey séer asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki sëriñ daara yi mbokki daara yëpp mbokki jullit yi mbokki taalibe yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ci turu seex mom Xaban moom Cheikh Mamadou Fadal mi nga xam ne moom la sëriñ Mountakha lépp lu yëm ci wàllu daara yi di ko ñaanal baax moom Cheikh Mamadou Xaban moom it e, yàlla defal ko tawféex ak ndam ci liggéey bi ko sëriñ bi dénk yàlla boo leen fi yàggal lool te wéral seen yaram naa loolu nag mi ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax baax di leen ndokkat billi gi ñu génn di ñaan yàlla ñu fekk at yu bëree bëri ci bala xaq di xaq di wax ne jot na ndigal nag ci sëriñ Muntaxa Mbàkke mu fi nekk Cheikhul Xadim radiyallahu anhu ngir ñu amal njàngum alxuraan mu yaatu moo xam dañ koy tàmbale dibéer ji di ñëw di fukki fan ak juróom ci weeru tabaski di fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juillet mu weeru tubaab mu war moo xam ne bis boobu lañ koy tàmbale boobu su del siwaat ba ca dibéer ja mu juróom-ñetti fan yoo xam ne dañ koy jàng alxuraan bisub juróom-ñeental ba di alterné nag ñu war koo tëj ci sëriñ bi wax ne incha allahu taala moo koy tëj si boppam ñaane ko yàlla defal ko tawféex ba ni ko bëggee mu defee ko noonu njàng moomu nag dañ koy defee ci daara yi ak ci jàkka yi ku rekk barab ba nga nekk waaye amul fu ñuy dajaloo di ko fa def waaye diiru juróom-ñett fan yi daal képp ku man sab jàngal ko sa bopp ku daara ak say donga nañ ko jàng képp koo xam ne it mën nga wut ñu la jàngal ñu jàngal la waaye dañ ko defee ci barab ya nga xam ne fa lañu nekk duñu nekk di fekk dajaloo fenn di ko jàng loolu moom mooy ndigal li sëñ bi nag nee mi ngi sàkku baax mi ñu tasaare ko te ñu yëg ko bu baax a baax a baax suñu fas si nag jàmmi réew mi ak naataange réew mi am jàmm ñu fi nekk am xéewal yàlla musal réew mi ci bépp ay yàlla musal réew mi ci lépp loo xam ne mooy gàllankoor nit ñi eh, jafe-jafe yi nit ñi dund yëpp yàlla teggi ko moom mi nga xam ne lépp ci loo xam nekk defal leen naataange xéewal bi barakatul quraanil kariim assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.